برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان للذين أجناك لن يعنيا أحسنوا إلى لن يجدهم يالا الحسنى الجنة ñi nga xam ne xéeru nañ te mooy ñu wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wax leen ko ñi xéwénal baax baat boobu lu leen ñaal aljana leen ñaal fa yàlla de njëgal aljana moo di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah caabi aljana rasulullah yonent na ne yow maas mu ne ko xuyu naa la yow yonent mu ne yow maas mu ne xuyu naa yow maas mu ne ma dinaa la yàlla mu ne ko ndax xam nga luy xàq yàlla ci jaam yëpp mu ne ko yàlla ak yonent dama xam mu ne ko xàq yàlla ci jaam yi moo di wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah yéetal ko bañ ko sakkal bokkaale de maas ndax xam nga luy xàq jaam yi yor yàlla su fekkee wax nañ ko mu ne yàlla ak yonent dama xam mu ne ko xàq jaam yi war yàlla mooy mu musal ci safara xar seen aljanna rek wa ziyaadatun ak ak ndolli nag bu leen dugalee aljanna ba noppi nag daf leen di dolli de ndolli ga moo di lan mooy gis xar gis kanamam nga de ni ngay gisee weeru badar dara du dox sa diggante ak moom ñooñu aljanna su leen yàlla dugalee aljanna danañ gis loo xam ne bët mësu koo gis mukk nopp mësu koo dégg mukk mës la toq ci xelam doomu aadama ci loo xam ne bakkan dana ko baneexoo ak bët yoo xamee ne nuur nañ ca xéewal googa da fàtte ne mas nañoo ne ci àdduna yàlla daf leen a defal ay xeet ci aljana xeeti ñooñu aljana mi ngi aju ci kaw seen xeet ya ñu xamoon ci àdduna de xeet ju nekk nag danañ ko gis yàlla xeet ju nekk nag danañ ko gis yàlla am na ñoo xam ne koori feet tabaski rek la ñu am ci xeet ñooñu daañ gis yàlla ñaari yoon at mu nekk am na ñoo xam ne jumaa ju nekk am nañ xeet ñooñu danañ gis yàlla ci ajuma ju nekk am na ñoo xam ne danañ gis yàlla suba ngoon am na ñoo xam ne danañ ko gis juróom yoon li ma juróom am na ñoo xam ne dañ ko gis ci gendeeku bu nekk mooy xaarifi na yi nga xam ne ñoom mosuñ leen a xiit wala gis yàlla naka noonu itam duñ leen xiit kem torfatal ayni suñ leen xiit woon ci aljanna yàlla kem xool xam su rek ñu ne la ko ko defee nag xeet yooyu yëpp bu na leen jox su teewal loo xam ne mosuñ ko gis gis nga ñu gis yàlla nag mooy mu gën ko la teewal yam leen di terale kooku ndolli gi yàlla dolli gu gëm yàlla ndollee ndolli mooy buñaa jënde ba noppi ñu buñaa la ñun jënd nañu aljanna ji laa ilaaha illallaa muhammadu rasulullah ba noppi li yàlla dolli gannaaw aljanna moo di lan gis ko gis yàlla moo fa aljanna fu moo gën aljanna buñaa kay mës da ëpp njëg buuñaa bu ëpp njëg amul fenn lu may fii ci aljana ñooñu aljana bu leen yàlla fayee aljana seen jëf ba noppi buuñaa ba mu leen cee tegal mooy ñu ko moo jaana buuñaa di def ba njëg jënd su fekkee ngay jënd lépp ngir sa njëriñ doo buuñaa lu day ni njëg sakkalu ko ëpp waaye kuy jënd nag ngir wane ngëneelam rek ak mbaaxam yaa ngi jënd loo soxla ngir sa mbaax kooku bu mu ñaawee bu ñaawaayee bu de mooy li lay dox suñu diggante yàlla suñu jë jënd dara la ci soxla jënd na ko ngir mbaaxam moo tax mu dolli ñu xam ne moo ëpp njëkk ñu xam ne lépp mbaaxam la wala yarxaqu muur ci bu joowam ay kanam seen xataru na mu si lëpp ngi jaagan jàqare de walaay ka ñëwee de gaa saawu janat ñëwee war a naan janat pour ñoom xaalis ba nu woy delloo ñu si àll jëjëlaat yàlla rek yàlla ñu si yàlla boole.